murtajan minnatun lana jariun billahi min asheytaani arrajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi ginnaaw sant yàlla julli ci yenantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di dellusiwaat ci seen jataay bi ñu tudde Madinatu Ilmi ñu di ko amale ci seen site bi ñuy wax 24actu ginnaaw buñ leen ndokkeelee lu baax di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci réew mi ak ci bitim réew fu waay mën a nekk ñu ngi lay delloo ab cër di la delloo ndotti ndokkeel ak cant di ko jëmale ci yéen ñi nga xam ne yéen topp jataay bi te dinu ci ñaanal ak dinu yëg li ñuy def di ko ittewoo yal na yàlla ittewoo seeni mbir te yàlla jàppandil nu sunu yëpp rek tey dañu bëgg a waxtaanee tuuti rek benn ittee tomb boo xam ne ittee la te mel ne xaw na doon tuuti actualité muy wàllu imaam imaam taxawaay bi am ci société bi ak kan mooy imaam ak wàccuwaay ban la imaam am ci société bi ak moom ban wàccuwaay la am ci diine lislaam imaam de mooy ki nga xam ne moom moo wuutu yàlla ci kaw suuf moo fi wuuti tamit yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi wuuti tamit ñi nga xam ne dañ fi mas jaar ñëpp ñu baax. imaam moo dikk di confirmer ñoom seenug am ak seenug nekk imaam bokk na ci li mu confirmer mooy confirmer ne yàlla moo yónni yonante bi loolu imaam da koy waaye imaam moo confirmer bu baax a baax na yonante bi sallallahu alayhi ndawal yàlla la te yàlla ñi mu woon sax imaam la leen tudde imaamul mursalina yonante bi sallallahu alayhi wa ba ci ñin jiitu woon ñëpp ay yonante yi sax dañ leen di wooy imaam kooku nag ab société ak aw nitam war nañ koo xool bët yu rëy bët yi ñu doon xool yàlla subhaanahu wa taala su fekkee mi ngi jubal bët yooyu lañ ko war a xool su fekkee mi ngi jubal bët yi ñu xool yonante bi sallallahu alayhi wa lañ ko war a xool imaam nag ci kaw société mooy lépp lu yonante bi daan taxawee daf ko war a taxawee ci wàllu gindi nit ñi ci seen wàllu diine <coughs> ci gindi nit ñi ci seen wàllu lépp loo xamante ni am nañ ko muy jafe-jafe wala mu am lu moom imaam bokk na ci social lu ñuy def ngir di jàppale jullit yi imaam moo ci war a jiitu imaam moo war programme problème bu am ci kër yi di problème mu sëy imaam bokk na ci li mu war a lijjanti imaam mooy tudd doom yi. imaam bokk na ci róolam mooy maye sëy yi bokk na ci róolam mooy jullee ñi nga xam ne dañ fee faatu jóge fi imaam bokk na ci taxawaayam mu leen jullee bokk na ci taxawaayam mi tamit miraas imaam bokk na ci war a miraas bu nu amee problème imaas moo imaam moo miraas ci miraam mu dëppoog sunna dëppook li yàlla santaane bokk na ci tamit ci imaam moo war a laaj asaka yi moom lañ ko war a jox wala moo war a yónnee laaj lu ko ñi ko am joxe ko mu joxaat ko ñi ko yeeyoo imaam nag day rôle bu rëy ndax moom dañ koo jiital ci sunu wàllu diine ci sunu mbiru diine ci lañ ko jiital donte am na yu mu war a lijjanti ci sunu wàllu àdduna ndax nit ki diineem ak àdduna àdduna bu amul diine moom amul dara maanaam nit koo xam ne sax àdduna rek nga am te amoo diine bokk ci amoo dara mooy àdduna bu naax saay kon imaam ab wàccuwaayam yaakaar naa ne lu rëy la loo xamante ni société bi war nañ koo xam war nañ fépp fu doon teg yonante bi ak wormaal ko ak topp ndigalam war na noo topp ndigalal imaam ci ludut mooy yàlla ci ludut loo xamante ni ak jàng la wala ak béccingal imaam war nañ koo koo def imaam nag ay rôlam war naa matale war na imaam moom war na xam boppam imaam am na foo xamante ni dañ ko fa war a gis am fu ñu ko warta gis am fum mu war a lu mu war a wax ak lum mu warta wax am fu mu war a waxe ak fu mu warta waxe imaam ubbil nañ ko ab jàkka surtout bu dee imaam boo xam ne day jiite ajjuma nga xam ne am na sañ-sañu tiim nit ñëpp ajjuma ñëpp toog ci kanamam mu nekk ci kaw tiim leen di wax ak ñoom amul kenn ku sañ a wax ne la déglul imaam sax kenn sañu ko ndax ku ko wax sa julli yàqu rendiwu boo xamante ni kenn ku xam lan mooy ajjuma waroo koo foosi sax da ngaa war a ñëw toog déglu imaam imaam war a digle war a tere loolu nag imaam bi su ko xamee foofu waxukaayam la bérébam la lu mu mënta lijjanti foofu nag daanaka xaw koo mën a lijjanti ci biir kër yi nag ak ci mbedd yi <coughs> ak ci télévision yeeg rajo yi ndax foofu ab mi la donte télévision yi ak rajo yi nag <coughs> am na lu ñuy yaatalaat ci wàllam ndax wàllam li mu xutba bi mu def ci jumaa ji ay ay koñ yu ndaw fekke ko xutba boobu ku ko dugal ci télévision yi wala ñu yóbbu ko ci rajo yi mën naa gën a yaatu rawatina internet yi kon imaam am na fu mu waxee war naa wax te xam na li muy wax léegi ñu dikk nag ci imam ci li wax ci taxawaayam imaam war na maye sëy ab sëy mu xam euh, ki muy maye kan la ndax ku nekkoon cib sëy la tas wala koo xamante nii dafa jàpp idda iddaam matut wala ñi mu war a maye <coughs> ndax bokkunu bokk goo xamante ni bokk araamante la ndax ki muy maye amut keneen ku ca nekkoon di ko labat ndax ndaw soosa ëmbul ndax yooyu yëpp daf ko war a laaj ay imaam joo xam ne dañuy dikk rek ne la sëñ bi dañu bëggoon mayel suñu doom nga daa dina ne nangam ay ca bu ñu demee ba toll ci imaam ñu mën koo luyee sax ci waxin defal nangam <coughs> mu def ko loolu du róolam imaam dafa war a wakkiirlu ci yàlla xam ne yàlla mi koy liggéeyloo am na fay te dina ko fay warul soxlawaat ci kenn ci lenn mu soxla ko ci keneen ku dut yàlla mi nga xam ne moo koy joxe yàlla mi muy liggéeyal te nekk ci fonction bi gën a rëy imaam bokk na ci ëllëg yomal xiyaam dan na ñett juróom-ñaari ker ker ya nga xam ne moo fay am taxawaay yu métti yee ñeent lan ca sippi wala juróom lan sippi ne ñoom mën na noo am taxawaay bokk nañ ci imaam ju maandu bu boobaa ker yee la muy naaj yee la tàng tàng imaam am na fa ker moom noddukat danoo wax ne ëllëg yomal xiyaam noddukat yi seen baat yi day gudd ñu taf ci lu mel ni or loo xamante ni ab or la ñu def ko ci seen baat yi ñëpp di leen xool seen put yi yuqamtiku kon imam am na responsabilité bu rëy boo xamante ni bu xamee boppam war na koo xam imaam yi tamit nit ñi war nañ koo fonk jox ko àqam ndax jàkka li muy rëy rëy ak li jàkka yaatu yaatu imam dong moo am place waaye keneen ku dut imaam amoo fa kon imaam am na wàccuwaay wu rëy imaam nag war nañ koo delloowaat àqam bu demee ba léegi imaam ñu man koo saaga société bi ñëpp na leewu kenn waxul dara yënguwul ñu dem ba imaam mën nañ koo def ci théâtre di ko saboote ca la muy liggéey ak doye di goo xam ne imaam war na koo mën a am ñuy wane ne imaam bi day doxaan imaam bi day def nangam imaam bi day carte imaam bi def nangam ñu def ko ci société boo xam ne dañ ne quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay jullit lañ kenn yënguwul benn réaction amul ñu mën toog ci deltu ginnaaw ak doye di ak ñàkk aw ba jigéen mën a yëkkati kàddoom nga xam ne jigéen moom kenn tànn ko mu doon imaam jigéen moom mënta doon imaam kenn tànn ko mu doon imaam bu jigéen mënee dem ci doyee dem ak mu yàqu ba jima jigéen mën a toog di saaga imaam imaam na lem nangamam toog ci loolu jàpp naa ne euh, jamono bu yàqu la boo xam ne adduna bu deltu ginnaaw la te meram sun borom mën naa wàcc ci askan woo mën a seetaan ñuy doyadil imaam di ko théâtre di ko def lu nekk imaam de li muy def ñaan yàlla moom mu faatoo ca loola imaam ñaan na yàlla muy dem di jiite aw nit imaam ku ko laajoon boo fi jógeel ci man fànn nga bëgg a jóge mooy dem ba sëlmal ba taxaw taxawal julli ba sujjoot suñ borom moom ko foofu jàpp naa ne ñooñu nga xam ne dañuy woy ak a misik gëw ma ne ñoom jàpp nañ ne buñ demee ba ca seen ba toog tàllal seen micro di fecc ak a woy faatoo foofu wala ka nga xam ne day animé ay émission wala jigéen jooju ñu ngi ñaan nag ñooñu nga xam ne ñooy doyadil imaam imaam yeni doyadal imaam ya suñuy faatu yàlla nan faatoo ci seen i sujjóot yu mujj ci seen ak julli ñoom ñooñu di doyadal imaam di ko théâtre ak di ko foye heure bu ñuy faatu ñu faatoo ci jamono yooyu ñu faatoo ca loola ñu nekk bu fekkee ñoom bëgg nañ ko rek bëgg nañ loola ñu nekk nan toog te imaam nag ku ko dëkk nag yàlla nga dëkk dëkkoo société bi de waaye yàlla nga dëkk ndax mbiram yàlla lay def yonante bi ngay léewtool képp koo xam ne yaa ngi léewtoog imaam xamal ne yàlla ngay léewtool képp koo xam ne yaa ngi léewtoog imaam xamal ne yonante bi sallallahu alayhi wasallam ngay léewtool jàpp naa ne léwtoog yàlla nag xaw ma fan ngay taxaw san suuf ngay taxaw san jant moo lay tiim xaw ma léewtoog yonante bi ban ndam nga ciy jële yaakaar naa ña doon léewtoog moom ca Badar ña doon léewtoog moom ci yeneen kii jàpp ma ne gis jëlee nañ ci ndam. te seen ak mujj rafetut kon képp kuy léewtoog imaam xamal ne yaa ngi ci teg sa benn tànk yaa ngi ko teg ci diggante àdduna ak sawara mooy saa boo génnee àdduna sawara ngay tàbbi kii léewtoog imaam na xam ne benn tànkam moo nekk ci àdduna bi ci des ngarte lëgg-lëggi sawara saabu bu róom gi waddee mu tàbbi sawara kon imaam kenn du ko fontoo ñu koy tiyaatare ak di ko def ndax imaam ñeme ngeen def njiitu réew mi ñeme ngeen koo fooye noonu ak wax yu ñaaw yi mën ngeen ko wax njiitu réew te moo ne kooku de ci sunu àdduna rek lañ ko doyloo jiitaloo ko kenn ñemewu ko ci ndax ñeme ngeen a dem ci beneen diine bu dul diine yi lislaam di fooye ka fay jiite ngeen koy fooye nii ngeen di fooye imaam ñemewu leen ko de ndax pulakaloor ñeme ngeen a saboté ko di ko def nii ndax ministre de l'intérieur ñeme ngeen koo def nii déedéet tontu bi mooy déedéet ñemewuñ ko de lu tax mooy yar bii daw la ngeen di ragal nag ca loola te loola mbugalam àdduna dong la imaam nag mbugalam àdduna mën na la cee fekk ëllëg yomal xiyaam nga dee tàbbi sawara kon imaam kenn du ko fantoo te képp ku ko mas a def mosoo ciy jële ndam bala ngaa dee bala nga fiy jóge da nga torox toroxaande joo xamante ni ñëpp ciy teg seen bët la nga waxoon ñëpp teg seen bët ñëppay teg seen bët te yàlla ku mën a xaar la ko amul benn yàkkamti ko mën may ngay dund la wax ngay di ree di am jot di am xaalis waaye yàlla du la bàyyi dana la topp dana la topp ba toroxal la soog laa rey yóbbu sawar kon mbokk yi nan xam li ñuy wax ak fi ñuy dem imaam du fawukaay imam du fowukaay imaam ci sunu mbiru diine lañ ko jiiteel kon kenn warul sabote ku laal imam dafa mel ni ñëpp nga laal imam moo am daraje jooju moo am daraje ku ko laal mel na ni ñëpp nga laal ku ko merloo ñëpp nga merloo merloo nga yàlla merloo yonante bi merloo nit ñu baax merloo sëñ Tuubaa merloo alaaji Malik ak keneen ku mën doon ci nit ñi yàlla yi ndax ñoom ay imaam la kon nag nan deltuwaat ginnaaw xam ne imaam na xam boppam moom it imaam warut fu nekk imaam bañ nañ ko ba ki nga xam ne daf doon njaalo moo xam ba faatu wala mu nekk ci loo xam ne lu neexut yàlla la ba faatoo sax imaam imaamu ratib imaam bu bi xam waru koo jiitee sax suñ ko ëmbalee mu am doom ngénteem imaam waru caa dem si ko tudd daa war a yabal donte wa kooku yayoo na dana war a yabal imaam bu doyedee doye di ñu jël ko waaye bu fekkee imaam luñ ko woo ñaar ñuy fo sax ba am doom ñu mu ñëw di tudd ñaar ñu bëgg takkante amu ci ñëpp di daw responsabilité amu ca mu mën a jël responsabilité di ko maye wala mu cay dem imaam bu manee taxaw ñu toog ñëpp di la seetaan nga naa jàkk ji 4 million dugg na fi te bu nu waxoon ñu soos soosaat bu nu bëggoon ñu ñam-ñamaat jàpp naa ne imaam yàlla la war a wakkirloo yàlla moo ko war a yor moo ko yoral soldom moo ko yoral li muy li muy dunde segam ñi taxawaal la yàlla di jox li ñuy dunde est-ce ñi nekkal yàlla guddi ak bëccëg juróomi waxtu wala lu ko ëpp sa dund gépp nga nekkal ko yàlla néegam yàlla bi gën néeg yi nga xam ne moo gën ci kaw suuf muy néegu yàlla yow yaay nekk ca kanam yow la fa yàlla doyloo néegam yow la yàlla jox caabeem yow la yàlla di fa doyloo ci néeg boobu ngir nga fay jiite kon imaam du caaxaan imaam na delloo xam boppam bu baax a baax xam ne ña ko defoon méngoo woon loola te yàlla rek taxoon na yàlla bu ne ñaari néeg laa am ci kaw suuf muy jàkka yi ak jumaa yi ak xol xol xolab imaam bu nu amee problème sax xel yépp ci imaam la war a dem mu ñaan dana war a imaam ñaanal bu nu demee ba réew mi toll ci situation bi ñuy wax ay ngóor jigéen di wax leneen di wax ay musiba dana war a wax imaam dellu leen ci yàlla ñaanal nit ñi yéen a nekk ci kanamu jullit yi kanamu kii kon ñaan leen kon jàpp naa ne bu nu àggee ba nuy doyadil nii imaam man koo tiyaatar di ko saboote xale bu jigéen bu réew bu yaruwul boo xam ne xamul boppam xamul fan la bokk xamul lan mooy àtte teyam wala ëllëgam mu mën a toog di wax imam wax ju ñaaw joo xamante ni doonte imaam dalaa tooñ wala imaam dafa tooñ am na baat yu teggin yoo xam moo war a jëm ci imaam laabire ko ndax imaam nit la mën naa juum day juum sax loolu daf koy def day juum li lay wan na day juum imaam day juum <coughs> mooy imaam julli gin ko doyloo sax da ciy juum yenn saa yi ñu doyloo ko mu war a julli ñeenti ràkk dem julli ñett loolu dafa juum mu war a sujjoot ñaari sujjoot dem sujjoot benn sujjoot imaam day juum nit la ni nit ñi doon waaye nag imaam lan wax boo juumee da fexe ba defaraat njuumte la boo waxee loo wër te wax war ngaa taxawaat mën a ña nga doon wax wala ña nga tooñ amee leen àq boo yàqee ci julli gi da ngaa war a toog réparé waat julli gi waaye imaam it may nan ko daraja ñi topp ci ginnaawam am na ci yooyu yàqu-yàqu yu am ci seen julli yoo xamante ni jarut ñu koy réparé imaam moo ko gàdduwaale kon imaam am na imaam moom lan may ci jàkka ji daanaka buy jàng ñëpp danoo war a noppi déglu ko buy jàng jullik biral ñëpp danoo war a toog déglu imaam am réew nag ak mujjug jamono mooy àgg ci ñu dem ba mën a doyadil imaam ñëpp na cell ñi ci yore responsabilité jàpp naa ne lii de ku ko waxoon ci xeet wala nga waxoon ko ci président njiitu réew wala nga waxoon ko ci beneen diine bu dul diine l'islam wala nga wax ko ci sunu ministère yi wala nga wax ko ci pëlëkëloor wala nga wax ko chef brigade jàpp naa ne duñ ko bàyyi wax ji mu sedd nii ki ko def nag nan ko kalaame ak yàlla ñii doye dil imaam ak di leen sabote nan bàyyi yàlla mi tànnoon imaam ne na nekk ci seen kanam nan bàyyi mbir yépp ci yàlla yàlla dana ko saafara ci àdduna àllaaxira tamit dana ko saafara ndax ku doyadil imaam yàlla mi jiital imaam tànn na ne tànn leen imaam kooko yàlla nga doyal boo àggee mën a wax loolu ne amul imaam amul mu xàddam loolu ak yaree diku la ak ñakk xam sa bopp te nag war ngaa tiit bu fekkee ab jullit nga moom ngay tuddoo war ngaa tiit baat yooyu war nga koo tiit yàbbi ko ba mu set wicc wicc nga gàll ko baat la boo xamante ni ñépp ko wàccu amul kenn ku ko rafetlu koo xamante ni yaa ngi dund ci lislaam ku ko rafetlu la tax ñu lay wax tuub ko nag mooy yéene la yërmande ak yéene la ak waaye bu dul loolu amuñu ci wenn naqar ndax yàlla nga tooñ imaam moom yàllaa ko tànn ku tooñ yàlla nag xamu fan ngay taxaw ci suufam si bu àdduna jan fan ngay dugg yàlla moom ñaari kër la am muy kër ak àjjana ak këruk sawara ña nekkoon ci ndigalam fonkal ko fonkaloon ko ay nitam fonkaloon ko ay imaamam bu boobaa ñooñu lay dugal ci àjjana ñako doon tooñ ji tooñ ay imaamam bu ëllëgee mu dugal leen sawara sawara nag xóot na yaatu na jàpp naa ne yow sa bàkkaari bopp ak li ngay def ci mooy yàlla ak li ngay def loola nga waroon lijjanti loola nga waroon a kii waaye waroo lijjanti imaam lu mu def ak lu mu defut kenn laaju la ci imaam kenn waxloowu la ci imaam imaam waxut ak yow imaam mbiru addu diine lay wax moom la sañ wax saa bu gisee lu ñaaw munkar sañ na koo dénoncer sañ na caa bu demee nag ba jigéen am fitu ni Sénégal toll benn jigéen bu nu yarut boo xamante ni addunaam bépp am foo la léppam caaxaan la mu mën a yëkkati kàddu di tontu ab imam loolo mooy askan woo xamante ni wu dellu ginnaaw dong lañ koy tuyee askan wu jar a tiit la nag musiba nag bu ñëwee ka cay ëpple mooy ka ca gën a sóobu ka gën a sóobu ca mbir ma moo cay ëpple kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp xam naa wax ji sax xol bu fees lan ko waxe moo tax xañ na nan ko bëggoon waxe dëgg duñ ko mën waxe noonu waaye daal ñu ngi dellu di ñaanal imaam yi ku ci nekk fa nga taxaw yàlla na la fa yàlla taxawloo te la nga fay def yàlla na yàlla rek tax la ngay jéebaane yàlla na yàlla rek tax munkar yi ngay wax ngir ñu bàyyi ko ak leneen ak leneen yal na yàlla rek tax yal na yàlla aar leen moom mi leen di liggéeyloo yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla wër te yàlla na yàlla defar seen mbiri àdduna ak seen mbiri àllaaxa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp